maaleykum salaam. maa ngi lay di la dalal. maa ngi lay fay. di kontaan ci invitation bi. attaque bi dinaa la wan suñu vidéo yi xumb rek mitin boo xam ne nii xumb ba mitin boobu musul am foofu karawaan boobu deux heures du matin presque la mais dafa xumb del daaru moxti te avant may ñëw dama njëkk jaar Kébémer toj ko jaar sagat toj ko doga ñew daru ma toj ko bam rajax legi nak jañ fa nak xol bu tang après ah dafa defé né mom mom daru parce que dafa yag dafa gagné da tok lu mat parce que nguru ablay wadi yépp ci nguru makki Sall début bi yépp mom moy moy moy gagné lool la legi nak su ñewé nak affaire donné dafa commencé sans élection yi jall ñëk perte élection local législatif waaw legi nak dafa minul defet quoi mais il mu muñ nak xam ne tamam temps jeex na daal l'intérieur dafa de mom ci buntu gendarmerie bi lañ doon xexé mais bi doon ko xexé dañu suñu yoon nekku ci ah, ah oui ba paré ñun avant ñuy dem ñom dem nañ di garder kër fa da fa lañ fanane ba ci 8h bi ñuy rombaat gis na leen ñu taxaw fess del fofu pour ñom ñun dañuy wuti mbolo pour ñëw attaquer wat voilà heures du matin la trois heures quelque non dañ doon caravane rek di dox di way rek ñu jékki-jékki rek benn oto rek ñëw foncé suñ biir di mu foncé mi xaaj ñaari xaaj ñenn ñi xam nga ñu jot avancé dañuy daw jëm ne ñi arrière noonu léegi yenn oto yi daw ñu ñu ay tir bari na bari na gisoo léegi ki taxawoon fii rek blessé la ñoom am ay ñu damm am nañ ñu am na ñu xamante ne rajo nañ ko dammul mais am nañ ko nga xam ne sax dafa daanu oto pënuy oto bi jaar ci kaw tànk bi ngi noonu ñuy plâtre na koo xamante ne ndigg li dafa yàqu maanaam tëdd jigéen la parce dafa jóge ci kaw kii bi daanu am na ko góor tamit koo xam ne ci kaw mooy fi ñuy karawaane xam nga dañuy toog ci kaw oto yi bi bal yi dafa cëppeelu ot fekk oto bi daw xel mu cëppeelu moom tamit yii dafa euh, am problème daal parce que dafa kanam gi ci tali bi ay gaañu gaañu yu bari ah, yu metti waaw loolu dinañ ko dakkal ñoom parce que amuñu doole juñ ko defee parce que nag boo bëggee dégg-dëgg élection yi deuxième tour mën naa am mais maag jamaay fay rek ñoo fay def kese ndax ñoo fi ami nit waaw yeneen gaay yëpp xanaa yow nag mënoo toog sa salon nag di live di jox RTS jékki-jékki ñu ne la nag wax dëgg yàlla yow yaay dem jël nga première wala jël nga deuxième loolu mënul nekk yow Idrissa Seck biñ tàmbalee ba léegi gis nga mu campagne maanaam mitin quoi mitin gis nga Pape Djibril mu mitin gis nga kenn mu taxaw def benn lenn loo nga xam ne ay mbooloo nekk nañ amul élection yi dafa des dix jours ñëpp xam kan mooy gagné. naa mbooloo mbooloo mu yaru daal te tëdd ci armée li ba heure wote jot ñu ñëw wate la. ci armée lañ nekk xanaa ah. waa armée li jógul de bu dee ñuy dund nii. ñooñu moom tànn nañ ba pare parce que boo demee antenne RTS bi rek àtte na leen RTS chaque jour buñ dugalee depuis ñu commencé ak léegi coalition Diomaye fay mooy jël paie. sondage. ci fii kenn mënu ko fabriquer Cheikh Tidiane Dièye moo ciy topp wala Habib Sy Habib Sy topp ci ñen ku ci topp doog ci topp Aline Mamadou Dia ñëw élection yi ni ma ko gisee nii Pastef mooy jël paie boo moytuwul pire mooy jël deuxième waaw. Amadou Randal mom ca kanam bo moytu mën na jël 3e wala 4e ñam ngeen yaakaar ni bu ngeen demee ba ca 2e tour duñ leen talal loxo ngeen ñëw jàpp. duñ dem 2e tour man ma la ko wax bu ja bu ñu amee tour nga war ma dégg dégg duñ dem 2e tour benn tour la élection yi té ñoo koy gagné. alors jamono ji da ngeen di arrêté campagne wala da ngeen reprendre. ya arrêté suba ñi ngi ci ma ngi doon wax lé gaay yi nañu dem Thiès. xam nga ne dañoo nelawut démb nag dañ doon karawaan après coow li am ñu top guddi gi ñëwoon Ndakaaru ñu ñëwee directement fii lañ def def cérémonie ba léegi tëddaguñ gars yi neen dañuy tëdd mais ma leen waxoon nañ leen dem Thiès sax seeti ñoom Birame Souleye ñun moom duñ toog tant que campagne yi jeex tëjuñu campagne yi bañ watee ba jomaay dem pale duñ neraw amul toog waaw yëngal rek non non amul ñaawlo dañ koy tëj kaso gaañ fada dinaa ko tëj kaso di ko may añ parce que sama mag la bàyyi ko madam mu koy cibbal jët ko mbàjji ak garabu yo bagage prison bi quoi xaw nak ba xam rewes lay dem wala kasso way dal dina dinañ ko ñamal mom parce que nak lim def dafa ëpp nit ko ko bëgg ray ko la wara da la wara yar tej la euh la appel bi may lancer moy sénégalais yi ñu def ndank muy coalition Diomaye coalition Ousmane Sonko ñun suñu coalition Cheikh Thioro Mbacké yep ak bu Abbas Fall bu Khoureychi cham coalition yep dal ak bu Abdinar Ndiaye xam nga ñun bii ba dañu bëri macha allah hmm? ñu baña répondre ben provocation parce que gars xam nañ na perte nañ élection yi so xolé ni gaay di rallier di ñew ci ñun ta élection demul deuxième tour ngay xam na ñi xam nañ kan moy gagner Sénégal voilà man wala jomay ñoy dañ ñooy dem deuxième tour <laughs> mais gars gaay mom ndaare lañ coalition boobu xam ne mooy a système moom daa war a nekk loo xam ne ñu ñii koy fu wax buñ ko fi sampee danañ dee ba am téeméeri at système boobu continue comme ayatulaay xomay ni révolution bi mu defoon samp fa système révolution bi mu teg defe naa ne ba léegi ni xomay ni nekkatu fa ñi mu àndaloon révolution bi ñëpp ñu ci bëri fi mais révolu mais mais système ba ma nga fa système du doomu aadama ay tëralin la yoo xam ne day lor doomu aadama wala mu koy jëriñ ñun buñ ën ñëwee système bi nga xamante ne dañ ko teg Macky Sall mën a toog ci pale bi su ko neexoon ne tey dix mille sénégalais dinaa leen jàpp day am parce que système biñ ko tegal ci kanamam la alalu réew mi ñu koy saax-saaxee nu mu leen neexee tey dinaa la mayaat benn interview boo xam ne bu ma la waxee jaañ faadal li muy def Sonacos ci saax saaxee alalu dëkk bi doo ko gëm lu nu ko neex jël rakkam jox ko foofu marché muy gañe marché yi di tappale di def ay ay ay ay employé fictif yëpp te danaa la indil preuve yooyu noonu moo tere dëkk bi dem système boobu nga xam ne politiciens yi ñooy def nekk ci liñ nekk gis nga réew mi bu Sonko toogee bañ ba Jomaay toogee bañ def réforme yi ba noppi mën nañ jël Farba Ngom def ko ministre de finances du lekk xaalis gis nga France ñëpp jubuñu Farbangom, Ngom ak Aliou Sall man d'accord na loolu yàgg naa ko wax man d'accord na jomay fay jël Farba Ngom def ko ministre des finances jël Aliou Sall def ko ministre de l'intérieur jël euh, Antoine def ko premier ministre amul problème Sénégal day dox. bu ko nexé na jël ñëpp parce que Sénégal Sénégal ñëpp ñëpp ay sénégalais lañ kenn mu amul amul carte d'identité keneen Sénégal bu dee da nga nan ñi duma and ak ñoom dama leen di beddi loolu baaxul discrimination ah discrimination lool la té loolu baaxul Sénégal da ngay teg loi bu dëgër bo xamné ki bëgg sacc day xamné bu saccé ñu japp té buñ ko jappé amul dem ci yek ci sëriñ bi ñëw ñu bayyi la amul joxé xaaliss ñu bayyi la amul dara li yoon wax lañ koy appliquer gis nga bu kenn saccé nga japp ko daan ko mu tëdd penam bam jeex genn keneen sacc nga japp ko daan ko mu tëdd penam soo ëllëgee xool dërëmu réew mi kenn du ko laal comprendre nga loolu mooy système bu baax bo xamantane day transparence am état de droit ku sacc ñu japp la ku liggéey ñu fay la deng mais amul na no ki papier la nekk duñ ko jël ki PDS la nekk duñ ko jël lolu discrimination xoma lan euh, waaw ni ko discrimination la te lolu day tass rew su ko suñ gis nga fo ma sa gis aduna bi tass ñaan peul yi duñ ñu jégué wala séeréer yi duñ ñu jégué wala géwal yi duñ ñu jégué rek su yàggee lolu bu démé bam mu rek di indi benen jafé jafé donc ah, buñ togué ñun ay ay loi yu deuguer lañ sam ku bëgg nak ñew yor bo liggéey ñu fay la bo saccé ñu japp la ku mu neex ci APR tay tay tay buñ daan won buñ défé appel appel à à à la candidature pour pour pour ben ben poste gëm nga ne man nga ko Pape malik Ndour ma Mbaye ñaar ma gëm nga ne man nga ñewal so so so mengo poste bi dañ la kay jox nga liggéey so liggéey ñu daccu la fay la xaaliss so liggéeyul randal comme ni Amadou ma di def xaaliss bi door rek ci toujours ñu wax ci affaire campagne bi ñu gis démb fële ci Kolda Ousmane Sonko ak Bassirou dañoo séparé wu mais ba ñuy séparé bu bees au de Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko jël santam moom Ousmane jox Bassirou jël sant Bass jël ko pour mën a séparé gisoo ni loolu da koy gën a bu ñu demee ci yenn gox yi nga xam ne Sonko dafa ànd ak moom pour nit ñi mën a gën a génn ngir mën a teewlu waa Bassirou Jomaay wala ñu tax mu def loolu. loolu Jomaay jour biñ ne Sonko moom la tànn. la ëpp doole bépp candidat comme bu jour bi ñu ne dugub donc Sonko bi mu ne man xëdd beñe dugub laa ci bëgg beñe dugub ëpp doole lépp Sonko ni mu def beñe dugub bu ko defee jomaay mu jar kooku mooy Seydina Ousmane moom soxlawul sax nekk fi naan ay ma def ko lii ma def ko laa dafa tolloog Ousmane ni mu campagne moo garaaw mooy dafa dem Casamance yow boo xooloon un million cinq cent mille voix yi Benno Bokk Yaakaar amoon maanaam ci entre Kaffrine Fatick jëm Kolda Tamba foofu la ko amee su demee foofu samp fa campagne fa ak ni ko nit ñi namee woon da ngay xam ne dina toj dina dina dina damm seen voix yëpp léegi su demee ba mu yàgg li mu fa bëgg temps bi moo ko ko mayul mu ne Basiru jaaral fee nga waabale ma jaar fe waabale bu ñu ba Kaolack wala beneen dëkk bi ñu daje li nga waabale ak li ma waabale ñu daje waaw léegi nag man maa nga sama côté bële Europe ratu ratu abas fal nek fe di di jël pel bi di cib gañ bu kii baaxoo maasale lañ leen. est ce leen yóbbee li nga dañ ko yëngal de dina la jox video yi nga nga dugal ko daru hmm, daru kay bu ko jañ fa da seetaane jaañ fa da lolu mënu ko muñ xam nga ngay politique mënoo am nit benn boy bu ndaw ñewul sa kanam nga kay xép nan no jaay katu garab mu ñew hmm? jaaykatu garab la mu ñëw dox sa kaw ah heurtal la ba nga tiit donc loolu dafa neexul man comprendre naa ko nit moo tax il faut ma il ma yaru li daal mooy nan yaru bañ a buyu provocation élection yi dañ koy gagné est-ce que xam nga ne euh, la vingt cinq la vingt quatre février à minuit moy anniversaire jomay xam nga kon Macky Sall dafa bëgg jox jomay cadeau anniversaire motax mu japp dato election yi fof legi ñaata at lay am xam nga 44 ans lay am 80 la jott 44 ans lay am 44 ans bi ñuy euh conseil constitutionnel Sonko lan la jëlone 4 legi budé Sonko moy jomay ñaari 4 lañ 44. waaw non dama lay wax rek 44 la Sonko mooy Diomaye